Mais étant dans une famille pauvre et très religieuse, son enfance avec le football était très difficile. Son père était imam et évidemment, tout imam rêve de voir sa progéniture suivre ses pas. Mais le petit Sadio avait une ambition très différente de celle de son père. Presque tous les jours, il jouait au foot et il lui arrivait souvent de cesser les cours pour se rendre sur les terrains de football. Ses parents n'aimaient pas cette attitude et n'hésitaient pas à lui frapper pour le dissuader. Mais à l'âge de 10 ans, lors de la Coupe du Monde 2002, Sadio Mané voit son désir de vouloir être footballeur boosté par la prestation incroyable des Lions de la Teranga. En image ni ñu koy wane en même temps donc Sadio Mané il est né le 10 avril euh, 1992 à Sédhiou au Sénégal c'est un footballeur et euh, un footballeur international sénégalais hors pair qui évolue au poste d'ailier ou d'attaquant au sein du club anglais Liverpool en 2009 il intègre l'AS Génération Foot maanaam nga xam ne Génération Foot la tudd où il est rapidement repéré par le club partenaire le club français de, en début 2012 au est relégué, mais Mané part pour le Red Bull Salzbourg. En Autriche, le Sénégalais se révèle totalement et marque plus d'un but tous les deux matchs et remporte deux championnats en autant de saison signant même le doublé avec euh, la Coupe nationale en 2014. Le Southampton FC Langage et Sadio mane confirme son talent en Première Ligue, continuant à marquer plus de 10 buts par an en 2016, le Liverpool FC euh, fait de lui le joueur africain le plus cher de l'histoire. Il s'impose rapidement et complète son tableau des trophées. Et euh, sur le plan international, Mané débute avec l'équipe nationale du Sénégal, euh, équipe A, en mai 2012. Il prend ensuite part aux Jeux olympiques 2012. Euh, Après plusieurs échecs dans les compétitions, les Sénégalais sont finalistes dans la, de la Cannes 2019. Mané aussi première compétition majeure avec le championnat d'Autriche en 2013 à Salzbourg et le doublé coupe euh, championnat de l'année suivante. Avec Liverpool, après être parvenu en finale en 2018, il remporte la Ligue des Champions en 2019. Il termine ainsi euh, vice-champion d'Angleterre 2018 co-meilleur buteur, remporte de l'UEFA 2019 et la Coupe du monde des clubs de la FIFA 2019, euh, de l'année 2019. Moom nag euh, Bambali la juddoo dans une communauté rurale du sud du Sénégal. Moom Sadio Mané euh, fan li nga xamante ne moo di football mooy wane ni looy def danga nga koy am passion la passion d'abord avant l'argent ou autre chose parce que c'est vrai que avant muy nekk li nga xam ne moo di joueur chaque fois daan na wax euh, euh, peut-être que ni moom dafa bëgg déjà avant d'être célèbre avant muy am alal et tout dafa doon wax ne que dafa bëggoon déjà li mu mën donc li nga mën danga koy bëgg jiital ko mooy la passion d'abord moom Sadio Mané parce que parti de rien xam ngeen Bambali nekkul fii ci Dakar donc foofu nekk na région euh, région de Sédhiou foo xamante ni métti na trop pour euh, vécu pour ñenn ñi donc moom il a survécu à tout ça mu continuer ci loolu gëm boppam xam li mu bëgg donc nekk koo xamante ni tey seede yàlla. ñooy woote parce que depuis sànq. yaas Mané te aussi euh, damay soxla. mu mhm. wax ma ci xalaatam. Mhm. ndaxte euh, moom elle là pour booster la jeunesse. à se projeter. Mhm. maanaam ñu séntu fu sori. Euh, te lii yaakaar de c'est un espoir. mais mais oui non yàlla rek moom ay jëm kenn xamu ko kenn xamu ko macha allah mm. comme ni ko kii waxee il est parti de rien de rien du mais xam nga yàlla lu mu xas bind ci jëw nit mm-hmm. ala kulli aali même bu dee benn fan sax mm-hmm. Mm-hmm. mu daal dee dem donc di ka ñaanal xanaa gudd fan wér gu yaram yàlla musal ko si cat ak naa nga xamante ni loolooy gàllankoor nit yàlla ko fi yàlla bàyyi muy gën a continuer di def acte social am yooyu nga xamante ni moo ngi koy def ci dëkkam ak fépp fa nga xamante ni nit a nga fa ci àdduna. Mhm. donc euh, mu ngi noonu. d' accord mi ngi noonu lii la woon daal incroyable mais vrai et c' incroyable mais c' est vrai donc Sadio Mané juste. 150 millions xam nga ni kii fàttaliku na fi mu jugee. Bambali la jóge et puis li nga wax c'est important nit looy def. Mhm. na fekk nga bëgg ko. Mhm. surtout. di bàyyi liggéey par nécessité. amul njëriñ liggéey ba du barkeel. looy def na ko bëgg. kon nag xam lu neex. Euh, dama ko setaan bi mhm. document bu mag bi canal def si moom mhm. mu wax benn wax bu ma touché mhm. mu ne <clears throat> dañ ko fekk terrain muy football boobu mu war a am sept huit neuf bu ma jumul euh, nee na xaritam biñ daw si quoi genre cousin mi ñëw ne ko sa papa dem na nee na âge mu amoon comprendre quoi dem na dem na fan nee na mu ne ko sa papa dem nga ni mu nettali histoire bi mooy foofu lu tax mu tabax hôpital en fait amul woon hôpital et que bi muy dem. Mm. biiram la doon wax mooy metti mm. après ñu jël amuñu luñ ko fajee ñu yóbbu jox ay xob def ay kii il du di dit d'une façon tellement naturelle. Mm. et ça a été tellement touchant donc Sadio ne fait pas dans le hasard. Mm-hmm. lu mu dund daf ko servir tey. Mm-hmm. mu nekk lu fort ci moom. Mm-hmm. moo tax muy def lu manqué Bambali. li fa manqué yëpp keroog déglu naa ko mu ne def nañu hôpital. ñu ngi def kii ñu ngiy liggéey ci stade bi am na yeneen yoo xamante ni bu ma bu ma mënee rek. il très humble. su ñu mhm. mënee rek dinañ dinañ ci taxaw. donc mhm. si Sadio dañ ko war a ñaanal. Mhm. Sénégal yëpp. Mm-hmm. parce que devise la. Mm-hmm. devise la maanaam ni Messi mel. Argentine mel ko mm-hmm. Espagne. Ronaldo mel ko. tey bu ñu amee benn Sadio Mané mu tollook ñoom niveau. li mu mën a indi sur le plan touristique li mu mën a indi sur le plan influence dans le monde. dafa bare. dafa bare les maillots de Sadio Mané sont vendus partout dans le monde. partout il est célèbre. ñëpp ko bëgg macha ñëpp ko bëgg moom africain bu xaw tekki dara tamit. fexeel ba def ni moom. Euh, ndaxte dafay yokk jom jeunesse ñu di la jaajëfal. waaw ki disent que bu nekkoon tubaab moo ñuy gënal waaye yàlla dogal na ni mélanine bi mooy yëngatu ci yaram bi. nit ku ñuul la te sénégalais la naan leen ndox da ngeen muñ. alors euh, may remercier ki ma habillé Asma mooy euh, Woziba. Woziba le tailleur de Youssou Ndour moo ma donc. le tailleur du patron de Ahmed Aïdara. du patron de Ahmed Aïdara et l'ami de Pa Assane. Euh, et de Pa Assane. Euh, ngeen ko bëggee da ngeen ko joindre ci 77 420 24 41 77 420 24 41. nee na ma nag Ahmed Aïdara la bëgg te dina ko ñawal incha allah ma indil ko ko. ma dalal Ahmed Aïdara na ngeen def. ngi maa sant bu la ziar si àjjuma ji. yàlla na ko ziar bu yàlla. waaw bëgg naa ñëwal ku baax. Hmm. waaw. ku baax. lu dagg morom ba lay fekki. bu newalee Youssou war laa mën a ñawal. loolooy dëgg. Mhm. Youssou daf ma bëgg. ma bëgg ko di sëriñam muy sama patron. li ñu boole dafa <laughs> dëggantaan dëggantaan nga fas yéene euh, dikk ak ñun ci li nga xamante ni mooy euh, li gën a fës ci bopp yéene kay maanaam revue des titres waaye tamit ci suñu xista du jour buñ ko fàttee moo ñu dig daje woon tey. Mhm. Euh, bu waxtu bi nag jib na mhm. ñu fas yéene rek dugg ci loolu. <laughs> moom sax et moom moom dafa mën moom léegi dafa aay de. nee na suñu xiste du jour. ah waaw olof olof bi. ah yes. c'est excellent. tu tu me félicites. c'est excellent voilà mi ngi noonu. bi gi na mën naa la nag. mais maa la <laughs> raw. gis naa la tey nga may yónnee SMS boobu maa ngi tës nga naan ma gaawul. suba teel man ñëw naa fi suba teel fajar ñëw man. ngeen si suba gi ngeen ñëw. Mhm. suba teel ngeen ñëw d' accord. Mhm. gaaw a ñëw suba mais man fajar laa ñëw. Mhm. ak waaw mais maa lay jiitu ba tey. waay <laughs> c' est que ordre alphabétique bi la xam nga sama tur. Ahmed ah, Aïdara A bi. bon ah. yaa ngi de. waaw mais man dama dig ñaara moo tax. Ah. ana ala double ala. am ko yombul de. oui mm. sama maam moo fort. moo fort macha euh, bi bu baax a baax a baax. macha xam nga <laughs> yàlla na yàlla dolli sutura. allahumma amiin Sadio Mané moom dañ koy ñaanal yàlla rek yàlla dëgëral mm-hmm. taxawaayam. Mm-hmm. amiin waaw vraiment xam nga li ñu naan dóor fayu. Mm-hmm. waaw waaw dafa ñëw fii jël trophée bi dem. Sadio wane ji ko ngar mi. xanaa xamoo benn góor nee na ma gis nga Ahmed. nit ci biiru ndeyam lay suuree. Mm-hmm. ñi ngeen di gis ñuy transhumé nii. Mm-hmm. Euh, am na ñoo xam ne duñ ko def mukk. Mm-hmm. ak lu ñu bëgg makki makki makki makki makki. lu ñu bëgg Ablaye Ablaye Ablaye Ablaye wala Abdou Diouf Abdou Diallo. adduna du yàgg mukk ba ñu jógee fii dem fii xamuñu ko. duñ ko mës a def. nit ci biiru ndey. Sadio Mané. fii jël. Ballon d'or ah. moom dafa ñëw. Mm-hmm. ñoom ñaar ñoo àndaat demaat seen club. Mm-hmm. bu ñuy football sax. sénégalais dañuy fiir ci kaw Salah. Ah. ni Salah di doxalee. Ah. Mm-hmm. man moom ñuy mer laay bokk. waaye bi yoon buy demaat étude. naar ba demul toog. loolu du yëfu ngar bi. yëfu naar la. merci. xam nga li ma léegi nag bon Sadio daal. il est à waaw ba pare yàlla daal da ko tàggatal boppam gis nga. ñun suñu genre mhm. lu ne wax nañ ko ci rajo yi pour Sadio yëngu. Mhm. waaw il faut muy yëngu il faut muy def ak mhm. gis nga bu doon yëngu même ballon d'or moo koy gagné mais dafa ne man ku nekk ak ni la yàlla bindee. mais journaliste tubaab bi ko laaj. ne ko ne que woon la. la. moom mu ngi Égypte. la réponse de Sadio. li nga naan yàlla moo ko tàggatal boppam xam nga ko wax. mu ne ko noo xam naa dafa jàpp mais bu ma yeggee bu ma yeggee il va me féliciter. day defar day defar euh, Sénégal tolluwaay tolluwaay tolluwaay la tolluwaay